C'est bon, on peut démarrer. Bismillah. بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الهمدلة وبعد الهوقلة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatuhu ginnaaw balmah, bi ngeen balma. nu dem ci sunu bax ni nu ko baxo def di ubbe sunu wax wax yi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Mom mi wax ni wa wahaba li khaira

wax ni barakatul baaxi lazi waalaa nii nafat li xayri la man xalaat nii donte du ñu ko wutal noonu itam waaye ndem tudd na ko rek am na ko nee na la grâce de son Seigneur ci la amee li ñu tuddee tata barrage digganteem ak ennemin ku tedd ki nag bu waxee loolu bu dee ñun bu ñuy jàngat iblise ak njabootam lañu koy interpréter d'abord ndax suñu boroom ci ay créature am bu dee nun ñii nga xam ne nun nooy doomi aadama dafa tànn ci ñun ñoo xamante ni bii ñooñu àlla ku leexalin iblis moo leen di coiffé duñu ko yëg nag ndax iblis invisible la waaye dafa bari pouvoir te bu ngeen déggee baatin du dara lu dul li nëbbu li ñu gisul fi toll suñu xol yi bu ko médecin ubbiwul rek laa yura kenn du ko gis nga xam ne suñu waxtaan ak yéen yéen taskati xibaar yi fi nu koy tàmbalee mooy situation réew mi fi mu toll. bu ko sañee buñ ñu dee wax utilise baatu interpellation lu jiitu ngay ñëw ci responsable yi famille yi ak kuréel yi ndax Sénégal famille boo dem am nañ kilifa moo xam Touba lañ ko am walla Tivaouane wala fi laayeen gi wala ñaseen wala fuñu ko mën am wala ci jang bi ci chrétien yi fami bo dem rek am nañ kilifa ñuy ñaan kon kilifa yi les responsables religieux d'abord kenn ku nekk wax ak ñi nga xamanteni sendigante yow lañu khairi, seen diggante ak yàlla leen xayri waxawlul xayri wa fi'lul xayri du càggee na wax naa ko démb sëriñ Muntaxa nga xam ni mooy al cheikh shuyuux du càggee na lépp rek ñu buggan ko ko xanaa ab tool moom bu dee jëwriñi almuridiya itam mu dee ab tool xanaa tool bi du caa na moom rek lañ koy bàyyee mu dajale uti yëpp di bay fépp hmm? te muy ñetti niveau suuf yu bokkul yoo xam ne fii daa yomb fii yombul jafewul fii jafe wax dëgg yàlla kenn ku nekk am nga ci rôle bu ñu ci jógee moom it wax dëgg yàlla kilifa yi ci des yëpp kenn ku nekk am nga ci réew mi am rôle boo war a joué ci doomi réew mi moo xam ci góor ñi moo xam ci jigéen ñi moo xam ci mag ñi moo xam ci ndaw ñi loolu moom ñëpp la war responsabilité la ndax yow ma nadduhu ku la unaasin bi imaamihim bu ëllëgee bu ñu taxawalee les responsables ñoom la ñuy taxawal bien waaw ñoo joxe ay compte rendu moo tax doon kilifa ñu yilif la moo gën a sedd ñu yilif la moo gën a sedd di doon kilifa d'abord il ne kilifa il bu ñu la yilifee rek bu ce kilifa la ñuy woo loolu ñuy ñaan responsable yi bu ñu ko ñaanee nous diine ba noppi nag ñëw ñaan ko fait, adduna bi nag waaw bu ci lu jëm ci ndaw ñi bu ñu rek bu ko de adolescent yi al ñi nga xam ne dem nañ ba am 17 ans huit ans jëm kaw di dem nekk ci daara ju mag ji ñooñu dafa am nu ñu leen di saytoo xale wax naa ko démb xale bu amee ñeenti at ñetti at ñeenti at dëgg la am na lu xew ci àdduna bi bu dee ci ndaw ñi nga xam ne ci tubaab yi la njëkk a xewee naar yi américain yi li ñuy tuddee dessin animé nga xam ne xale yu ndaw yi tuuti yi trois ans quatre ans seen yaay yi waaw dessin animé yi ñu koy màggaale nag li ñu ci taatan li ñuy li li ñu ciy jële képp la ñuy mën a xam di ko màggaale loolu it ñu koy bàyyi fel ba bu xale bi amee juróomi at juróom benn at nga koy xiirtal ci di ko jàngal di ko fàttali waaw ay maamam di ko fàttali di ko jàngal yoo xam ni balaa dem ca daara ja ca école ba ñoo fekk mu xam lu bari ci kër gi loolu moom parents yi lañu koy ñaan

citoyen lañu ñun ñëpp waaye nag war a fax naa ban doohum fawqa ban dara jaat yàlla yemalewul ñun kay nooy am suñu constitution di yemale ñëpp dans la citoyenneté républicain et cetera waaye yàlla moom yemalewul tilka rusulu fadal na bandoom àla bandin àla ku laal nit ñi mënuñoo yem bu doon loolu ñëppay tolloo bu doon loolu ñëppay ñuul bu doon loolu ñëppay xees moo tax faw setantal kenn ku nekk nga xool dayoom la ko yàlla may nga nangu dogalub yàlla la ko yàlla may nga nangu dogalub yàlla amaa jëmm yi xew nag ma dellu si ci ndaw ñi te ñu koy gis ci àdduna bi yépp waaw rek nga ko dul gis lu mat a bàyyi xel la maanaam màkk bu fa dee am itam yaakaar naa ni Makka ak Madina al Munawwara ñaari dëkk yooyu Makkatal Mukarrama ak Madina al Munawwara yi xew ci àdduna bi foofu la gën a néew néew mu amu fa de waaw néew mu amu fa de ak it ñii xale yi def événement am ci biir politique bi xale yi ci occasion wu di def naka su dul noonu est-ce que seeni leader ñoo leen ko sant hmm? est-ce que seeni leader ñoo leen wax ni taalal yi fi jàmbur sàccal yi fi jàmbur dëgg la sàcc moom am na fu nekk màkka sax am na fa ndax asaariqu wa saariqatu waaye faqtahu aydiyahuma jazaan la yàlla wax loolu daa xewul fii rek Serigne Touba moo am loo xam ni ixtasani lahu bi ma lam yëkku nii wala yëkku ni li si waaye bikku ni moo tax bu ñu nee diw ray na itam du tax mu raylu ndax dafa am lu ma ko soppee dafa am lu kenn amul bu ñu nee diw sàcc na it du tax mu dagg lu mu dagg lu loxoom moom ko tedd ki foofu la yërmandeem tollu loolu moo tax li mu daj lépp ak fi mu jaar yépp ba mu ñëwee nag liñ ko doon def lépp mu baal ñépp waaw kenn jéemut a topp tànkam waaye dafa jàngale bàyyi fi li mu jàngale mooy bonne intention bonne parole et bonne action Niatul xayri wa tout le wa fihlul xayri wa mulazamatul tous les conscience la le comme ñun suñu fi suñu niveau suñu dimension nous lañuy way nañu c'est l'intention qui compte Nous jëm rek ndax deug la Yalla moy dafa signé jàmm doonu lu ñuy ñaan ab dëkk la daam yoon wu fa jëm ba bëggee dem musalaa jaar yoonu rimbax doo yegg loolu moo tax ñu ni bis bi mënuñu cee ñàkk wax ndax xew-xew yi am ci politique beeg violence bi am dëgg la xale yi koy def sax dañoo minoritaire am na organisation boo xamante ni bi bu amee te képp kuy responsable te am capacité def dara ñu encouragé ko appuyer ko bu ñu ko defoon rek fi ñu toll lii xew lépp lépp lépp ñoo ko teg suñu bopp ndax danoo fekk yoon wi ne nii fa ne nu fay jaar dañu jaar ci yoon wi muy waa pouvoir di waa opposition <laughs> li ngay wax danga leen koy seddale waaw ndax ku dul yàlla yàlla rek moo dul juum njuum tey day am collaborateurs yi chef bi mën naa nekk chef waaye alayhi salaatu wasalaam bu ko yàlla nee dama laa yónni def la xaatam nga complété yonent yi dafa daal di tànn fukki jeune ak ñaar waaw ku nekk di yóbbu correspondance fu nekk te da daan diisoo ñoom bu Jibril ñëw ni ko yàlla nee na rek day waxtaan ak ñoom day concerté wu waaye concertation yi itam ak daan gis ku ñëw ci moom ni ko day jébbal yàlla boppam jaaree ko ci moom dugg ci biir lislaam fekk espion la te bu ko xamee ci baatin itam da ko ciy bàyyi da ko ci da koy da ko ciy bàyyi ñu koy observer dëgg la bu rey jotee nag dinañ rey waaw bu punir punir jotee itam dinañ la jàpp nañ la kii waaye yooyu yëpp Serigne Touba mi donn lépp nag moom xool leen yërmaane ji mu indi ndax ku tedd ki bañ nee nekkatu fi ñu yóbbu ko Touba léegi ndax dégg ngeen ñu reyante ci ak xilaafa ndax kenn mësu na ko dégg te am na ginnaaw yonent bi am na kon bu nee am na lu kenn amul bul ci génne kenn ixtasani la wax laahu bi maa lam yëkku nii te walaa yëkku ni lii sa waaye bikkul amul won te duutu am limu am mo illa yaxaadallahu maalam yakuni wala yakunu abadan li mumkin gis ngeen tank system colonial bi ñun ci lañuy gouverner suñu rew yi kenn mënu ko fi jëlé dama bëgg sama baat ca kaw ñu dégg ma faaw complexe bi ñu jël ko tek ko fee xam am nañ ko xamanteni bi moo ni amara ni rabbi bi an musarriha bi an usarriha bi an malazun wa mafsuhun fa man araada alxayra fii kilta yi dare ni fal yalus bii bu fekkoon daf koo wax rek yem ci nga ni waaw waaye dafa def lu tuur ànd ak ñoom fu nekk ñu def ko lu nekk jéemal ko lu nekk luñ ko jéemal tey réussir ñu balaa ëllëg ñu fanaanoo li ñu ko war a jéemal ci ëllëg sa toujours nee na day jàpp ni lii ñëw suba mooy gën a metti lu tey ولا waral ci bisu samedi mu ne akhriji adaka sarmadan min rahmatik walin taqam minhum bi abqa niqmatik te bi ñu koy mettre au poteau fu mu toll mi ngi taalif du caagee na day bàyyi ba jël plume bi ak encre bi rek déedéet fu mu toll même bi ñu ko taxawalee di ko mettre au poteau mi ngi taalif ilayka an hayta masiri ya ahad lay wax yalla sama demas ci yow rek la jëf waaye nag waxut tali ma la yarahu man jahad defal nga ma lo xamanteni bi kuy du ko teg bët jaar fofu yépp ak ñom ba ni ma leen ko waxe legi rek ñew fi mu wax na lu leer wax ni sunu der bu ñuul bi kontul li ci xol bi ak li ci bopp bi mo compte c'est la compréhension qui compte fa lay su yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'al al mo mu wax nu ko hmm? ñu war a ñeme doctrine bu bees ñun Sénégal ci ay réformes ñu wara a le réalisme africain pensée bo xamante bi ci un africain un sénégalais un saint de Dieu ci la jógee def ko réceptacle sukkandiku ci pourquoi pas li kulli shay'in ajal humril insan ya'muru bi tadrij Dundo, ay étape la étape bu nekk ak lamu lay nit ku nek am nga ñetti étape yo xamne ne bu ci ne man nga ci wuy ji sa borom waaw en première étape bo dimul deuxième étape bi bu ñewé bo dimul troisième étape bi mënoo ko recc imanan wa islaman wa ihsanan koko programme la ci vérité absolue moom nag la ko yàlla jox maddal yel xaqul mu biinul xaqa wa bil xiyaaral ulama la wax boo nekkee savant ba noppi nga koy soog a soxla moom ku tedd kii Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noo am ko ci réew mi di def suñu yi nii def mel ni dëndul bàyyi xel dee ba'dal mawt pouvoir pouvoir yàlla rek moo ko am waaye lan la wax mulku ilahiya gadan li zaati wala si yan hu dararun lizati gis nga ñii lama ma waxoon tubaab ya ak tubaab ak tubaab ya nekkul ci po bi am ah, ci mentalité la nasaraan waaye lañ leen leen waxoon ilahi ilahiya gadan lizati <laughs> le souverain du seigneur de mon Dieu m'appartiendra demain waaw ah, te boobu bo bosam dafa spécial bokkut ak souverain yi, déedéet parce que bii daf ni yàllaahu yaa waasihu yaa zal mulki wahabtali muxjila ahlil mulki nee na ko yàlla yow mi nekk fépp yow mi moom souveraineté yow mi moom souverain yaa ma jox loo xamante ni bi dafay gàcceel ñi nga ko jox ñëpp ñi nga jox nguuru àdduna ñëpp man bi nga ma jox dafa koo gàcceel waaw ni ko chattaana ma bay na lesi xaddahazou ndax ñoom bi nga leen jox dañ ciy xiiroo ko ŋaayoo ko xëccoo ko rayante ko turante dërët bu bay na maa husu wa ma ahazu par rapport ak man li nga ma jox waaw base wu ci niyatul xayri wa xawlul xayri wa finlul xayri waaw jazaan wa sawaban moo tax comme le bien de tous les temps de tous les jours de tous les semaines de de toutes les semaines maanaam fu yiw nekk rek yàlla jox na ko ak ci waxtu wu mu koy génne ndax suñu borom malaayika yi bu ñuy séddalee du ñu juum malaaka du juum na def nii ku la bëgg a jox ñaari junni far juum jox la junni wala yooyu déedéet malaaka du juum waaw ndax dañoo maîtriser seen liggéey am du ñu juum waaw te lu ci nekk waxtu wi ñu ko war a def du ëpp du yées te kat li gën a yéeme mooy benn malaaka buy xëy xool ma mahfuus xool li nga war a def ci journée bi te doo ziyaare ji Tuubaa dellu amul samay wax di moo ko wax chakar ni inda jamihi jundihi mus xasadu ziyaarati min hindihi night and day loolu loolu mooy li yéeme malaaka li mu bëgg a def gisoo avion dañ naan avion bi dafa tardé mu yéeg ba ca kaw mu ra mu rattrapé heure bi xaa <laughs> ah, loolu malaaka kooku daa loolu moo tax waa politique bi oh li ci kanam mooy dara lii li xew da ko nuuru rek day nuuru dara waaye du dara dëgg la dañuy bañ may codé waaye faw may codé waaw ndax itam nag <laughs> xel moom li muy jariñ mooy ñu ne la lii baat bi nangam la tudd hmm, nga xool ba xam baat bi lan la mën a jariñ ak lan la lay jur bu loolu xel du liggéey waaye bu ñu leen leeralee lépp te ngay borom xel am na ñoo xam ne dañu may dàkkaa fu naan fexeel ba mu leer ma luy loolu fexeel ba mu leer li may wax day leer naññi ku mu leerul ci sa bopp yaa yaa war a xoolaat sa bopp li may wax dafay leer gis nga muy Macky woo Idrissa Seck woo dama ne woon du ma tuddi tur mais mënu ma leen ñàkk ba ñu tudd Macky Idrissa Sonko euh, Khalifa ñom ñepp daal de mënuma tuddu ñepp nak waaye day am ñoo xamne ne ba leen tuddee nañ ñi ci dess waaw ñi ci des da ngay jël parce que tur wo gis dina am miim wala mu am waaw wala fa ñi ci dess ñepp da nga leen di duggal ci case yoy ma leen di inviter ci le réalisme africain ci alxadimia ndax man ma devenir gis ngeen gouverneur général ba ngeen daan dégg bi ñu amagul indépendance sero balaa laa jël oh, suñ toll xam nga général Kara rek la ñu wax déedéet gouverneur général dal xadimiya te mu ngi sunu kanam te bu ma wax ji sàppee man man am naa sama constitution bu bees mi nga ma denc gis nga seen yi ñuy def buñ ko bàyyiwul <laughs> Sénégal coow li na bari ca kanam waaw ndax man ñaar fukki at ak ñaar laay nangoo am donte maa ngi waaj a boucler soixante yi itam lank lay def benn deux ans lay nangoo am ndax leader laa du ma sëriñ li ma man sëriñ mënu ko li may wax sëriñ du ko wax li may def sëriñ du ko def tey nag man la neex ma solo ni amine bëggoon na maa dugal ci geneen col ma ne ko bàyyi ma tey rek ma doon almbuudu almbuuda fiñ ñu toll réew mi defe nañ ne am nañ problème mais problème amagul moy buñu ñu limay wax lolu mi ngi ci kanam il faut ay réforme am wuñu fi ay élection élection nañ ko soppi def ko élection yi bu naree am nañ ko soppi def ko référendum laaj Sénégalais yi ba xam d'accord nañ ci projet de société ku tedd ki le réalisme africain wala déet est-ce que d'accord nañ ci constitution bi ñu soppi ko wala déet ah soxna si yeen ah yeen di wax dëgg yàlla yeen yeen yen de bëgguma leen wax dara waye dal yéen ñaar ñi lay wax bëgguma leen wax dara de waye wax dëgg yalla ndax di ngeen bayyi seen lepp ñew fi motax waye xama xam metti malaka ngeen yor yen xama bu ñuy wax liberté rek kër bu bayyi leen ko <laughs> démocratie ñu bayyi ko gañ ñom mak mag liberté nañ leen ko bayyi parce que metti malaka ngeen yor bu c'est très dangereux wa metti malaka li ngeen yor yen ak médecin métier malaaka ngeen yor motax man toujours dama leen di respecter motax ñi ñi ëpp ci yeen dañuy mëna gënt lolou kay Modou Mbacké leen koy wax hmm. ñun soxlu wuñu élection fiñ toll ndax bala nga ni naam ne fa nañu fexé ba xalé yi dal ñu fexé ba wax ak Ousmane Sonko fexé ba wax ak euh, Macky mim ko sikkal ak collaborateur yi Macky te nak xadamtu batilan bi xaqin fa zahab la ko tedd ki wax ca wa kaana xaqan wali ilaahi kasa saq yihi dahaq gis nga dëgg moom bi mu fekkee lu dul dëgg rek martub dëgg la jël na ko mu ne tasar nanu ko nangu dëggug yàlla gi moom la ko jox Sëriñ Tuubaa la ko jox ñun dëgg gi mënu jox day soppeeku ndax nee na nu jibril nee inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu soppi joté noy soppi sunu bop li nu bëgg soppi ñun moy constitution bi wa li nu bëgg soppi moy turu président de la république muy tuddu gouverneur du sénégal wala nangam wala gouverneur de la nation wala nangam ak nangam ñun ay réforme lañu bëgg année prochaine soxlu wu élection bu ñu demee ba élection day am nak nañu nangu ma bok amul jangul tubabat du 81 léegi day bëgg yag yàgg waaw bayyana lil alim wal khabiru tabiyina man tadbiruhu tadbiru waaw discernement moo am solo xam ki man ak ki mënu bari na luy soxé ci état moy da ngay jox ab liggéey ko <laughs> te loolu ñàkk dëgg tax waye mbir yi eh mbir yi dal wax dëgg yalla buñ bëggé mu soppeeku te aw yoon nañ ci bolé religieux yi rek lañuy wax man nag fas na d'accord dialog accord dialogue baax na lool ñoom ñu ngi commencé dialog ci après midi bi Cheikh Mbacké sama dom moma fa wara téwa waye dialog dafa am lu ko gëna bax lol dinañ ko waajal te penku lañ koy défé waaw ene collégial bo xamanteni bi bii luy nuru assise international ñu fay def bu ñu paree ci li def jël le réalisme africain expliquer leen ko ba mu leer nañ intellectuel moom boo ko joxee document bu ko liiree léegi nag bu ñu nee li fi tubaab yi indi woon képp ca la nuy nekk ñun suñu jaan wàcc waaye bu boobaa de man buur bu xonq cooy laay doon Touba Choukouri waaw ak sama autonomie ak samay soldat am ay gendarme am ay gémi lépp laay am bu ñëwee li may wax man du fi Moussa <laughs> bu boobaa nag la problème di am lii daal laa ni woon faw ma jàllale ko bu ko defee nag lu waaye bëgg laaj na ko laaj waaw aleykum salaam wa rahmatullah mm, dañu amoon benn laaj bu ñuy laaj bu mm. weesoo liñ fi mm. am na benn actualité bu xew ci Touba lu fa xew ñu gis uh, am na koo xam ne dañu wax ni dafa sàpp ay xale loolu moom la concerne bul eggale ndax duma ci tontu loolu moom la concerné man dama bëgg luy jariñ askan wi fii nu toll waaye koo xamante ni bii kuy ku ñu ne day éduquer mbaa ñu ne day jàngale defu njaaxu moom ñu ma koy laaj fii ma ciy wax du ma def loolu non non je ne pas man li may def mooy fii réew mi toll nan la ñuy def ba réew mi jag man looloo ma intéressé xale yi ay pépinière xale yu ndaw yi nañu leen tàmbali yar ci kër yi wax naa ko ci début bi man kenn mënu maa dugal ci njaaxum di ma laaj yëfi jàmbur du ma ko nangu bu doon loolu xanaa kon ma ngi sonko lii sonko laa ma ñëw bu doon loolu kon kon xanaa bu doon loolu kon ma tàmbalee ci sonko yam ci moom Ousmane Sonko <laughs> bu doon loolu ma tàmb bu doon wax waxi jàmbur rek man mën a tàmbalee ci moom yem ci moom mën na maa wax ci moom lu bari lu baree bare bari ndax am na ko ne ma fekk na ko ci barab bu ku tedd ki muy jàng sindiit yi am na ku ne ma bëgguma wax ci yif jambour jàmbur nañu wax rek wax deug yalla xalé yi nan lañu mëna def bañuy bañ ba enseignement yi éducation yi ñu duggal ci li Serigne Touba di wax njàngaleem Serigne Touba xalé yi màggale waye ay problème yi di dam na kii ak tuutuma tuddu sax baat bo xamni kenn waru ko tuddu ci yeen ni baat xam man les fois Baye Fall jël benen <laughs> laajal la waaw déedéet yow bàyyi leen ñu laaj lu leen neex bu kenn baaree kenn bul fàtte ne dañoo bàyyi seen liggéey ñëw fii bàyyi leen ma ñoom rek waaw dama leen di satisfaire waaw. Hmm. Hmm. Hmm. waaw. Kan, eh? hmm. eh? sant mo mam ndënd de. non non non non. lol expression bu ngeen di wa wa déedéet dama ni man dama am plan bo xamanteni bi Mamadou <laughs> dama am plan tati moo ba ci yag ma yok ci ñaar. dem dama soppiwuma ko sax waaye dama ko yokk pour mu nekk ciseau waaw ma tati moji waaye moji waaw ñaari plan yooyu dama ko am maanaam ñett baax na juróom baax man xama duma dem président de la république waaye doon candidat am na nga doon waaye du caa génne nag li tax nga doon ko danga koy daal di wax ci bi nga ko déclaré. dama ne man bu ñu deful li may wax bu fekkee élection day am nañu nangu ma doon candidat est-ce que dinañ nangu nañu nangu laa wax di ah, <laughs> waaye sampantewu ci mu dënd rek euh, ak sempi waaw tey boo amoon loo xam ne di nga ko wax pour bi mënut a indi jàmm. <laughs> teyu di teyu di bul fàtte ne teyu ko bi mënut a indi jàmm xam nga lu tax. Hmm. damaa jàpp ni dinañ fa nekk naan yàlla nee na yonent bi nee na Serigne Touba nee na góoma nii dinañ fa nekk di ko wax ah mbaa boobu habitué wuñ ko du dëgg te loolu boo nee jullit nga te doo njëkkee loolu la ngay def du sotti du jag. wala xayrihi loolu moom duma ci juum waaw ndax projet bi day doon projet boo xamante ne nii dafay nekk exclusivité ndax dina am implication inclusive boo xamante ne ni yeneen tarixa yi dinañ ci mën a gis seen bopp. ndax ku wax projet de société wax ne loolu du yem rek. ci benn bàcc waaye ñu bëri dañ cee bopp. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen tarixa yi war cee bopp. ban démarche nga nar a am ci ñoom. ba ñu mën a adopté loolu. tamit inconvénient wala sax. barrière yi yi mu mën a am. ci Sénégalais yi ndax dama ko léegi léegi dañoo am benn système colonial bu fi nekk. lan mooy doon pexe bi ko fi jëlee. Mhm. pour projet boobu mën a am. Mhm. ndaxte comme ni ko expliqué ci njëlbeen bi. yéen saa salaam bi mu génnee àdduna. Mhm. nguuram yu bëri contesté nañ ko te ba am na ay bakkan yu bëri ci loolu. bu ñu jëlee modèle lu Cheikh. Cheikhul Khadim euh, macha allah boobu léegi. njaboot gi. dafa gën a booloo. Euh, dañoo gën a dañoo gën a nekk benn. te musul am benn coow. waaw xam nga léegi wax nga lu am solo gis nga Serigne Touba moom rassembleur la gis nga li ñuy wax tarixa murit tarixa tijaan tarixa xaadiriya nangam ak nangam Serigne Touba pour wane ne rassembleur la moo tax deuxième exil bi gànnaar bi ko yonent bi di indil al wirdul maxuus wird yëpp a ca nekk comprendre wird yëpp a ca nekk waaw fi ñu toll al maxuus boo ko boo ko kii rek boo ko boo ko wérdee rek wérdi nga wérdu wér wérdi nga wérdu tijaan bu xaadir wérdi yëpp chazeli yëpp loolu moo tax fi mu toll nii comme li ma junjoon ci benn collégial boo xamante ni bii loolu maanaam këru diine bu nekk xalifa ba kilifa ga day yabal ko ko ci représenté comprendre waaw bu ko defee ñu car mbat maanaam li réalisme africain document bi ñëpp am ko ku nekk joxe ci sa xalaat maanaam loolu bi li ñu ci jublu mooy madaliyal husna ومد لي زيد la ko tedd ki wax man di yaqulu haka xabla maddi yedd maanaam yàlla li mu jox ñi mu élire ñëpp muy muy le secret de ses noms li ko tàmbalee allah ba sabuur waaye nag Serigne Touba nee na plus ba daf ko ko jox madd li zayed man moom laay interpréter al mu'ti moom lay firi al mu'ti le donateur léegi bu fekkente ni pare nañ ci buñ ci paree ñii fi nekk bu fekkee ñoo fi nekk ba tey wala ñeneen dañ leen koy proposer parce que lii wërta doon luy yàgg ah luy dem xaar ay élection wala déedéet lu ñu war a préparer la teel ko proposer bu ñu nangoo bu ñu nangoo li ma wax léegi référendum bu ñu ko nangoo te bàyyi élection yi dàq ko def référendum parce que ñun euh, changement yi ñu bëgg daal lu bari moo war a changer ci réew mi waaw lu ñu war a gëm suñu bopp Lalu bukan di wax nan gem bopam dede dañuy waxin la sax ci moom waaye buggaan mom Serigne Touba la gem wa gis nga fiñ ñu toll nii te itam gis nga ki bi makki dégg na ko mu tuddu projet de société Serigne Touba Madlabul na mu prononcer ko ci lamagne ki di Idriss sek dégg na muy wax waxi ay bayit wa waaw Mamadou ñaa di ma ni lima may wax dégg nga nee len Sonko wax nañ ma day jang hisnul abrar suba man ñu ma wax kenn kuy wax waxi ku tedd ki te duma la respecté na hasanaati at sayyi'aati man yu ñaaw yi damay fexe nuñ ko rafetalee waaw loolu ku tedd ki di wax boromam naan ko samay sayyi'aat at nga ko def muy ay hasanaat boppam taxul muy wax ñun ñoo tax muy wax buy wax naan astaghfirullaha min sam'i wa min basari wa min zamiri wa min fikri wa min kalimi ñun ñoo tax muy wax waaw sowee nanu nu ne bunu bëgg ta suwe nak bunu bëgg bëggut mbay bu nu bëggut sowe jaanam na ku tedd ki sowe nanu nu ne tebul teb rek ne fa ka dafa ñëkke shafa saqima nafal alima al khadima illa najay sokku mi xadd fàkk kabala xad wat sa fa duru walla wana nafu kompleks complexe bi dañ ko jël tek ko fele lolu la <laughs> nan ko jël tek ko rek al-ilmu nurun le savoir est une lumière wa man nga man na jaar par la science man na ñew direct mubasharatan man ku ne man bu ma waxe ñu defen dama jang te jàngoo ma xila wala xaar <laughs> hmm savoir mais li mbubb la rek doyul nan la mel hmm <laughs> mooy discernement bu mi dafa wax wala dafa ñuul wala dafa bëla waye dañuy defe nañ ne problème amna wallahi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mom lay jël cédé buñu ñu né problème amna problème amagul moy ñu ni mal li nga bëgg du fi musa am bu baba ku bëgg problème di nga doyal salam waaw non non bay leen rek man ma ngi soga chauffer bi waaw hmm. ñuy mm. ñuy sa message par rapport ak yi nga xam mm. waaye xam nga message bi ma maa ko jëmale ca parent ya ak kilifay parent ya nee naa la famille bu nekk famille bu nekk Sénégal rek am nga kilifa ak diine kilifa ak diine yi nañu wax ak parents yi parents yi wax ak xale yi à partir de la maison mais banditisme nag yàgg na fi ci àdduna bi mën a yàq. alxayru wa lu baax ak lu baaxu dafay yàgg nii fi guddeeg bëccëg yàgg waaw ak lu tàng ak lu sedd maanaam lenn lu nekk am na contraire bi lu tax yàlla di bind àjjana bind sawara lu tax muy bind la nga xam ne du àjjana du sawara bu biyee mu ne nux nux bu biyee mu ne war war ah ñun ñett lanu ñett lanu kenn ki day dem àjjana kenn ki du dem àjjana du dem sawara ki ci des day dem sawara léegi nag ku tedd ki ni li kulli man biya ta'allaqa naja min kadri dunya wa fii yawmi naja nan ko wuyu comme ku ko wuyu mucc bu ëllëgee bu fekkoon ay njaaxum rek ci nga nekkoon bu ñekkee malaayika yi bu ñekkee Sëriñ Tuubaa la yaakaaroon mucc nga waaye ñu am ko ci réew mi du tee ku amub sëriñ sëriñ ba baax na mi ngeeg dara jaam ak yëpp waaye kii da cee bokkul jutta bi mufradin lana faaxal jumal khutta lana mu jela jeysen wa amal bokul fenn ci ben rang buñu ñu pouvoiram daraja am ñi yàlla jox daraji ñepp ñu bolé leen tek ci balance mu kon bokku ci il est distingué ñu am ko ci suñu réew mi di dugg ci tiaxan yi am jappal bàyyi nangam ak nangam way waxon na leen bayit bi mu wax legi parce que lolu mi ngi joggé ci bi chattaana ma bayna lazi xadd hazu waaw loolu lañ ciy nekk de parce que pouvoir bi Iblis moo ko coiffé maanaam pouvoir colonial Iblis a ko coiffé waaw ni nga ko bëggee rek ak ni nga koy nan nga koy réussir amul loolu génn bokk balewuñ ci yàlla te lillahi mulku samawati wal ard ku ko fi am moo la ko jox moo ko joxoon Souleymane jox ko moo ko joxoon Daoud Daoud baayam hmm? ñu cumuler ñaari pouvoir spirituellement temporellement fii nag bu ñu xefee foofu lañu jëm fii bu ñu xefee bu ñu xefee ñoom nguur gi dana koy jël ba noppi annulé ko duutu duutu exister indi nguur bu bees tàq duutu du boo xam ne du doon nguur du doon nguur liggéey lay doon liggéey liggéey waaw waaw chef d'état bi sax mën na tudd la gardien wala waaw mën na tudd la gardien mën na tudd alxadim le serviteur nangam ak nangam waaye président nangam Pro assaw yi moom président yi moom kurel kan bu nekk <laughs> am na président président moom du du turu dara xanaa bu maki président de la république waaye turu président moom kurel boo gis rek am na président xale yi étudiants yi mais étudiants yi maa ngi leen di sant surtout mouvement bi nga xam ne Mamadou ñoom ak Sidi parce que wax nañ ma dal dal na sama xel ci étudiants yi waaw ñom fas yéene nañu rencontrer étudiants yi ci Sénégal yépp ci vacances yi waaw pour ñu xol violence nan la mëna génné ci université lolu Mamadou xam nga lu kii maa ne la loolu benn étudiant da ko xalaat ñew nañ fi ba ci at mi. may leen ma tëj may la ma tëj déet bul tëj déet da nga naan may leen ma wax man bëgguma tëj ah waaw may waaw waxaat. déedéet may tabarakallah hmm. waaw hmm. waaw loolu bàyyi ma bàyyi dogguma la de mais comme c'est du passé da may bàyyi ma wax li ma ci bëgg xam nga loolu weesul léegi nag dafa am fu ñu toll waaw maa ngi lay sant nag ndax yow fàttali nga ma loo xamante ne bii faaw ma wax ak ñoom mag mooy waaw léegi xaaral xaaral xaaral ma tontu ko moom dama kontaan ci moom mi parce que yéen ñëpp la kontaan gaa waaye dafa laal foo xam ni dafa laal fu ma intéressé ñoom mag yi li ñu war a def wax ministre de l' intérieur parce que ñoom am nañ cara sécurité am nañ récépissé <laughs> légal nañu nañ leen wutal foo xam ni nañ leen récompenser ba ñu nekkee ci kaso bi man ma daan sonn ci mbaa boog bokk naa ci ñi doon sonn ci di leen fayal ay location hmm? waaw ba ci neuf yi mu jege na barki Dembo Ndiaye waaye li taxoon ma ni la li taxoon bëggumoon a dellu ci gannaaw parce que dafa am ñoo xamante ni bii dafa am ñoo xamante ni bii ñoom ñoo taxawoon wax ak Macky ni ko faw ñu jëm si ci sama kaw ki ko njëkk a proposé dafa am ko mu yebal ci benn sëriñ serigne lasrar pour mu laaj ko ndax suñu ma songé ndax réew mi dina yëngu fekk bi mu waxé ko ah loolu ten bañ na dugg cooy mu ne ko président ki buñ ñu ko seetaanee nangam ak nangam damay bañu tudd turam di sutra <laughs> ñom ñepp la xam waaw groupe bi nga xamanteni bi ño tok waxtaan waaw ngir ñom ñu déstabiliser leen humilier leen def liñ def nga xam ne bañ nekkee ci kaso bi ba léegi seen doom yi ñu daan ñi daan ñi ñu daan éduquer seen doom fu ne jooytu nañ fa fu ne jooytu nañ fa léegi nag bëgguma sax loolu dugg ci détails yi parce que <laughs> Macky moom xam na ni xam naa lépp xam na moom xam na waaye li ma bëgg mooy état ci boppam reconnaître leen waaw bu ñu leen mënatul a récompenser Ablaye Wade xam na ko fii ba mu fi nekkee ca méridien président ni li nga man ci ndaw ñi ñun mënuñu ko ñun jàpp tëj leen man na nga ma nanga

dégg ngeen li ma wax ca fan yële waaw man nekk naa fi Serigne Saliou nekk fi ma nekk Paris hmm? borom daaru sama rakk nekk fee mook taalibe yi ñu dem jàpp 40 yóbbu leen Louga ñu def fa 6 mois 40 la ñu te sëñ woo ngi fi woon te ak ñaan la leen yónnee maanaam kaso doonul ñun lu nu nuy kii ñun ñëpp ñun ñëpp ci kaso bi lañu war a dee bu nu goree comprendre ñi ñoma ma rek ñoma ma xamul ñoom mag yi ñoma ma xamul wa mais amna ñuma ma xam ba dem ci seigne muntaha xam na ma nga dem ci seigne mustapha salih xam na ma ñaar ñooñu doon am ba ñi ci des ñëpp sëñ mor mi ma waxal barki dem mu seigne Murtala xam na ma koku mom nako ko na ñëpp ñaanal seigne muntaha na ñëpp ñaanal sëriñ sepp mais sëñ mor bu seigne Murtala ni ma ko beralalu ñaan jambar la joxone ne boo leen teew wax <laughs> non non non boneen tew ciy wax fermement ci lam nekk la nekk avec constance ba noppi nag <laughs> dara nekk ca bopp ba loolu daal moom sant naa leen journaliste na bëggul ku ko jox xaalis waaye yéen mu jox leen xaalis eh, bu leen waaye kaay eh déedéet eh kaay man maa doyalul loolu leer na yëkkati man daal maa doylu bàyyi leen leen bismillah wax leen bismillah waaw ah nuyu woon nga ma léegi xam nga muy nuyuwaat waaw. Hmm. Hmm. yi waaw yi ñu bu bees hmm. mu nga waaw loolu la loolu wax naa ko sànq soxna si moo tax ñuy proposé le réalisme africain dañoo jël mat Matlabul ni lañu jël wut ci quelques ver waaw def ko mbànd waaw mbànd mi nag mbànd boo ko xasee du lu la neex sotti ci bu la neex sax def ci meew <laughs> bu ñu ko tëjee ku ko seen nii day defe ne ndoxa ci nekk ba balaa balaa moo xam ne meewa ci ne mu ubbi ko waaw moo tax fi ñu toll loolu lañ bëgg soxna si mooy yërmande ji maanaam Serigne Touba daf noo wane yërmande nu ne jàngaleen na ko nu ne

waaw waxal non man pare wu ma pare ñu waxal de kii bàyyi ko kii waxal déedéet ma yaamu saa waxul ñu ñaanante waaw waaw kon léegi yaa Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul noo ngeeti nii ak sunu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp tabarakallah Thank you.